dafa am ñaari jàngat. waaw bi mooy domaine dafa wuuteeg littoral bi. DPM bi mooy fi ndox mi bu dalee cent waaw nga xam ni ndox mi mën na koo fekk si ak l' de la mer loolu moo tax ñu wax DPM. Hmm. mais littoral bi mën nañ ko jël dix kilomètres ak géej gi loolu yëpp littoral la. littoral bi mooy guddaay bi. waaw non littoral bi fi ndox mi yem. waaw lu ko dal dix kilomètres. même dans certains études de la banque mondiale au niveau fluvial mën nañ la wax sax cinquante mètres loolu yëpp littoral la fépp fu nga xam ne géej gi wala fleuve bi am na influence mën nañ ko tuddee littoral. ñun cent la ñu wax. non loolu mooy domaine public maritime dafa am distinguo entre le domaine public maritime et le littoral le DPM est dans le littoral mais ñun fii nit ñi non seulement dañu occuper littoral bi hmm. mais dañoo dem ci domaine public maritime bi fu nga xam ne amuloo fa sañ-sañu def lu dul lu neex a samp ak lu neex a loolu mooy distinguo bi d'abord mhm. ensuite ñu ni la li ñu ni la domaine public maritime bi ñépp a ko bokk mhm. kenn waru koo privatiser mhm. ñaari mbir yu nga xam ni gouvernement bu bees bi def na ko ñu kontaan si mooy mbiru bateau de pêche yi ak mbiru littoral yi mais nañ ci dem comme ni ñu demee ci wàllu joxe semence yi militariser ko parce que képp ko am titre ci domaine publique maritime bi seen collègue ñoom moo ko signé. ah foofu laa bëggoon ñëw nag. non attends je veux laisse-moi terminer Birima laisse-moi terminer. je di képp ko am titre de quelque nature que ça soit sauf déclassement au président de la république collègue président Diomaye fay ak président collègue premier ministre ñoo ko signé. maanaam waa impôt domaine ñoo la jox. ñoo la jox papier. par le biais de la commission de contrôle des opérations domaniales bi nga xam ni article cinquante cinq du code sur le domaine de l'État la loi soixante seize soixante six moo ko institué. mais kan mooy signé le ministre de des finances sur présentation du comité des opérations domaniales que préside un de leur collègues donc pour man suñu bëggoon lu leer lu wér ñu ñu jëlee ay soldats jox leen wàllu jiwu yi noonu la ñu war a jëlee des militaire pour siéger uniquement exclusivement dans la commission ad hoc créée par l'arrêté 66 6632 du 13 mai mais arrêté boobu ñi ñu wax ni ñoo ci bokk ñoom ñoo nekk ci commission des opérations domaniales ñoom wala seeni collègues or bu nekkee dañu jox commission boobu sañ-sañu vérifier contrôler les anciennes et les nouvelles attributions sur le domaine public maritime de la région de Dakar nañu ko jox ñu neutre jox ko soldat si ak ñun société civile euh, écologique bi ñu vérifier fëgg sa bunt koŋ-koŋ yaa ngi ci DPM bi wala yaa ngi ci littoral bi an sa titre nga génne jox ñu ñu recenser mais loolu waroo ko mën a def ci ñaari weer moo tax ma ni la. dañoo sumb lu baax mais dañoo biaisé démarche bi biaisé démarche bi ci composition commission ad hoc bi parce que amul benn société civile c'est les mêmes qui attribuent d'une manière induite ñoom ñooy joxe titres yi ak sañsañ yi ci booru géej gi te nañ koy joxe jaarul yoon ñooñu la ñu jëlaat seeni collègues wax leen saytu leen ñi nga xam ni am nañu fa titre te dañu waroon def lu fullaak fayda comme ni ñuy def ci wàllu jiw wi jox ko soldat si ñu saytu ko comme fëgg la rek laaj la am sa titre vérification des titres mais titres yooyu warul nekk ci fichier ci fichier bi non ni ñuy joxee titres yi baaxul ñëpp xam nañ ni boo waree am tiitre ci booru tefes gi déclassement la war a nekk te ñi wax nañ ko déclassé dañuy nax président déclassement dafa yomb il suffit que président ñu ni ko li ñu fay def am na njëriñ rek mu génne déclassement mais Birima jëlal tefes gi boo jógee bloc des Madeleines ba yegg si place du souvenir waaw à votre gauche y rien de bâti amul tabax li jàkkaarloog université ba foofu da ngay sentir ngelaw li dab la waaw bloc des Madeleines ba fan université ba université ba place du souvenir ngelaw li nu ne la lay jëlee waaw boo jógee bloc des Madeleines fii ba université non non bloc des ci kaw waaw ci kaw bloc des Madeleines bi waaw ba nga yegg si Soumbédioune waaw ak teeru bi waaw ak Azalaï ñaar yooyu ñoo fa nekk te ñooñu li ñu def mhm. dañoo sëkk géej gi mhm. dañu def li hollandais yi def dañoo gagné espace ci géej gi loolu waroo ko def hôtel yi dañoo sëkk géej gi dañoo sëkk géej gi plage yi accessible ñu tere ko loolu waroo ko def te amul étude d'impact environnemental et social même boo defee étude d'impact environnemental et social ba ñu may la loolu anaam l'agence nationale des affaires maritimes créé par le décret 2009 583 dafa ni même buñ la joxee concession mu am impact négatif anam mën nañ ñëwaat dessus. bien sûr comprendre soo rombee teeru bi. Mhm. ba nga yegg si. université. non fële place du souvenir. Mhm. place du souvenir sax suul nañ hôtel yi ñoom Radisson ak yooyu dem nañ ci suuf ngelaw li di ñëw directement ba ci corniche bi mais boo ñëwee Sporting foofu la immeuble yi commencé jolleewaat. Mhm. te loolu à partir de 98 la 2000 la. loolu yàggul nous quand on était étudiant à l'ENEA boo nekkee sa chambre ENEA dara du dox sa diggante géej gi. mais loolu c'est une nouvelle ville qui est là-bas. est-ce que ñooñu am nañ titre normal parce que titre yi nga xam ni. waaw ah, foofu moom une nouvelle ville la ba wàccee suuf moom di nga xam ni. mais commission commission de contrôle des opérations domaniales ñoo joxe titre yi mais amuñu ci droit dañ la wax bala ngay am titre ci booru géej conseil départementale bi def délibération il faut mairie ba mu nekk joxe avis il faut que le préfet def avis de non objection xam nga ñett la rien que qui dépend des collectivités locales il faut que ANAM joxe son avis le texte dafa wax l'avis de l'ANAM est préalable à toute concession sur le domaine public maritime c'est du français ñoo ko bind mhm. sur le code du domaine de l'État dañu wax nul ne peut avoir un titre sur le domaine public maritime sans l'avis de la commission compétente muy ANAM muy ville de Dakar mhm. mais ñu wax la ci biir code de l'environnement waroo def dara ci booru géej gi te dafoo étude d'impact environnemental et social soo ubbee code de l'environnement bu bees bi article 20 dafa wax lan mooy évaluation environnementale lan mooy évaluation environnementale stratégique lan mooy audit environnemental lan mooy étude d'impact environnemental te xeet yooyu yëpp ñu jël c'est pour que li ngay def ci tefes gi wala li ngay def ak foo ko mën a def mu bañ mu bañ a am njeexital buy gaañ doomu aadama bi wala buy gaañ jànqa gàncax gi wala buy gaañ rab mais loolu nit ñi duñu ko def te loolu soo deful ñeent yooyu ba mu leer nga def étude d'impact am aviou anam am délibération. Ah, da nga jàpp ni ñi tabax amuñu loolu. amuñu loolu parce man li ma la bëggoon wax mooy. seeni titre baaxul. seeni titre baaxul. jaarul fi mu war a jaar. jaarul fi mu war a jaar te loi bi def cee leer. te boo defee lu mel noonu li loi bi wax aadama mooy dañ la war a daan nga delloo béréb bi na mu meloon. na mu meloon ci yow. ça hmm. c'est le code de l'environnement. c'est le code du domaine de l'État. et c'est c'est notre loi parce que dañoo coppi suñu constitution. Hmm. en 2016. wax ni. l' article cinq ñu dagg ko ñetti dagg wax ni alal ji nekk Sénégal doomu Sénégal yee ko moom mais tefes alal la alal la ñépp a ko bokk mhm. le code de la marine marchande wax la le littoral n'appartient à personne son usage est affecté à tous termes yi dafa leer mhm. mais la commission des opérations du contrôle des opérations domaniales domiciliée au ministère des finances mooy ngan di responsable dérive yi am ci tefes yi parce que am xaalis nekk am xaalis bu yomb nekkatul investir nekk dara da ngay am 2000 mètres carrés ci booru tefes gi mètre carré million wala 2 millions nga nekk milliardaire c'est sûr ñoo am ci corniche bi ñoo am ci mamel ñoo am jàmmalaay filao yi ñu dagg déclassé ko par ñaari décret ki nga xam ni attaqué nañu ko parce que citoyens yi ak écologistes yi léegi ragalatuñu lu ñuy def birima ñiy def loolu si yéen a bokkoon classe yéen bokkoon bokkoon classe lycée Blaise Diagne. bokk classe université. ñu dem ENA mën a nekk ci lu nga xam ni. mën na leen may xaalis yàq suñu dëkk. su président jëlee sañ-sañu saytu ko. il doit aller jusqu'au bout. warul def maquillage. warul def faire semblant. warul vaciller. je suis très clair dans mes propos. ah oui leer na. du premier ministre en date du 13 mai numéroté 6632 si composition membre commission ad boobu daf cee lajj. Mhm. ni mu jëree pas-pas ba andil ñu ay militaire pour ñu saytu nu mu tudd. engrais beeg affaire agriculture bi. noonu la waroon jëlee ñu neutre ñu tegal leen loi bi. mais est-ce que wees na wees na. et ils de boussole que l'intérêt supérieur. de la nation mais weesuwul. ensuite nga jox leen ñaari weer. Mhm. ñaari weer yi nga am si ñeenti fanu Pentecôte. nar si am une semaine u tabaski ak i samedi ak dimanche est-ce que ñooñu war nañu mun a saytu tous les titres de la région de Dakar